ba léegi ñu yem. Busumbura. Busumbura. kan nga wax ah yow ku la wax Busumbura. waaw ñu jaay ma. yow li ma la wax léegi nii. man ma Koulibaly nga waxoon Busumbura. Ah, Koulibaly Koulibaly Dabara. yii sama waa yow fa nga juddoo fu xumb la. Pou. bureau numéro 15 fa ngay wote yow ban parti ngay wote opposition wala pouvoir. saa waay xar bi moo de mun naa am xar bi. yow est-ce que mas nañ la parrainer sax bala nga wax xar. du ma jaay n'importe qui wax ma xam ñaata la. dégg sama yaay di ma woo na ma jabar ci bi fa toll ma ne ko bala ma la defal dara defal naayaa. Ah? sama yaay lu ma defal lu nampal ma dong ak du ma kuus ak yooyu. ay ay. ah ñëw nga di ah. xamoo ne yow sama maam fi njëkk génn mun lay tegi. rajo gi cak rajo gi gi cak rajo gi cak cak mu laa cegi nii lii mooy mu laa cegi. loolu jamono jii may wax ak yow de maa ngi nii toog ci géttu waaju ba Marième Faye Sall moo fi waaj a ñëw. dindil batterie dindil dindil. waaw nijaay lii nag dindil batterie loo ci woo sa yaay looy wax. looy wax sa yaay laa xamul lan la. sa yaay dama ko yóbbu dara. sama yaay dana doon of ko. kooku moom mm, sama yaay baax na. sama yaay di mag. moo of sa yaay. sama yaay kan lay doose sama papa gaañu. kan lay tiitaru. yow kay yaa war a sant di sama kanam. daf sa jees neer. sama yaay bu sant di ko jàpp ndax daa jaal. dafa méttee su guddi gi neen lu fay xew. xale bi la yow. Eh. yow yaa ma tere. yaa ma tere nelaw. non ah. mana bul ma bul ma jooy loo. Eh. Eh. ma ne bu ci biir kër gi xale bi ni ma faax mu ni ko xaax. ko jàkk ma ni ko. njool njool ko jattu il joue très bien. mais nag ma Mahrez xam ma Moussa Niass mooy mooy naar boobu. Uh-huh. ne bu ñu ko paas te bali. waaw incha allah parce que day defanteeg moom. incha allah ça va yéen ñaan leen rek. ah dana baax. ay xar laa bëgg ah, nga bëgg. ah amul problème xar yi de laa yore. neex gaaw a ñor la sax. waaw ah, beneen sax. Mhm, gaaw a ñor waaye ñaari. waaw ñaari nga bëgg. waaw ñaari la ma koy joxe. ñaari de benn bu ne bëggoon naa ci euh, deux cent cinquante. <laughs> na jóg. peeseetu wa kora frappele bala fo tam li du ngente de léeg-léeg rus arusi la dënta dala eh, burus mi daata dala see eh. mi si panne se ne eh, mi si panne se ne mi daata dala see cam may ñu waaye dama ne PC tout le Vocoran fàppale balaa fo. les lions rouges arrosi. yow bu les dons de la fée. les suufee ne te fàtte seen. aywaay aywaay aywaay aywaay aywaay aywaay aywaay aywaay la ilaha illallah très bien baaxoo léegi nag xam nga nan nga def da ma jox numéro Marème Faye Sall ma nga jox ma numéro protocole bi man ma xoolal la eh fetche bako man la Serigne Koulibaly mais waay waay ay buum waay ba ma yow Koulibaly bako man la Koulibaly merde laa wax bako ma lay noq léegi ah ma lay ñuus na yow yaa reew waay yow lan nga yuux ci gétt gi pompe nii man ma koy yeew jaay eh bako eh, eh, eh, eh. Hmm? bako eh bu leen xeex ngeen eh bako xam nga damay néew sama rawaan dama jëli rawaan bi dama la rey yow patron hmm? alma da ni ma deux cent nga may waaw dafa manqué cinq mille dafa manqué ah, cinq mille maa ngi maa ngi jóge dafa desoon ci poos bi sama poos yi mooy loolu Thiam bàyyil jooy. mbaax Thiam. Thiam xar mi laay bañ a annulé bàyyil dënn bi. avertir naa la ñaari yoon yoroma pompe dama asma jëlal xar mi ñu dem. eau minérale amul. ah bari dof. ba xam ah. orange ba xam orange ma nii. yii man nag orange money dama plafonné moom. dama plafonné ba yàqu kay. mais dara bàyyi ma dugal ko par code. Ah, ah, ma ko par code. léegi te commencé damay naa yónnee. jóg leen jóg da ngeen soxor rek. delluwaatee seen géej. dièse cent Jusqu'à la Tabaski, tentez de gagner chaque jour par tirage au sort 7 moutons et 7 gazmères pour tout retrait d'argent. Transfert avec code, transfert vers la sous-région ou réception RIA avec Orange Monnaie. Nos partenaires distributeurs pourront également participer à la tombola et profiter des xéwal. Orange Monnaie ànd ak tabaski bi gën a xéwale gën a yomb gën a neex si ñëpp si dièse 144 dièse Orange Monnaie la maa si seen application Orange Monnaie. Orange Monnaie est un service de Orange Orange.